suivre ci Leewtoo TV ak Lutte TV ah ñu ngi leen di nuyu di leen saar ni ngeen ko xamee rek parce que maanaam ñaari site yooyu ñoo bokk ndey ak baay parce que lu tax mooy ñoo bokk lu ñuy def maanaam làmb 100 pour cent nga fay seetaan tey nag ñu ñëw seet si benn mbër bu ñuy wax booy Bawal nekk Olympique de Ngor mais di doomu Bawal bëree combat dimanche bi ñu génn tombé nag ak le 16 juin digganteem ak Marley yàlla mooy ko ci ndam lamb ju bëri coow après combat bi mu ngi toog ak nag doomu ndeyam comme niñ ko xamee petit di ah ñoom ñaar ñu lay bëgg di la ah, maa ngi lay nuyu maa ngi koy nuyu. Mm-hmm. waaw ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur di santaat sama yaay bu baax di ko santaat di nuyu waa Njaan fi ma juddoo di nuyu waa Bawol yëpp di nuyu waa Ngor fi ma yeewoo di nuyu ñëpp di nuyu sama mama aji maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Mara Kane naa Seck Mohamed Seck waa États-Unis yëpp ñoom Aliou Ly comprendre Boris bu Ngor petit production bi maa ngi nuyu ñëpp daal yéen itam maa ngi leen di gën a nuyuwaat waa dina wax bisimilah. dañu ñëw rek dugal ci lamb ji directement balaa ñuy dugg si combat bi sax sa combat ren mais dama bëgg nga dëngalaatal ma sa palmarès ñaata combat ñaata ñaata défaite. waaw yaakaar naa am naa 17 victoire ndax 16 laa amoon avant may bëre mu mar waaw noonu la demee. ñu gisoon la benn moment nga teglante woon benn dynamique de victoire bu neex at yi ñu génne daaw ki nga xam ne moom moo di euh, ama neex stopé la stop bu gaaw a gaaw a gaaw. loolu bi mu la arrivé noo ko dunde waa si tolof tolof yu garaaw laa nekkoon ndax euh, boo daanoo ña nga doon gis ñu bëri dootoo leen gis ñu bëri dañuy daw di nga dund situation boo xam ne yow ak yàlla rek koy xam comprendre ak ñi nga xam ne dañ laa bëgg te yàlla tax te yaakaaru ci yow dërëm comprendre dund naa ay jafe-jafe yu doy waar te benn defet rek la woon comprendre moo tax damay santaat yàlla quoi ndax euh, combat bi. daf ma jaaraloon dama doon victoire kese laa gis ndax tegle defet ñaanuma ko woon yàlla waaw yàlla nag jour boobu comme li ma doon wax rek kàttanal na ma fii laa ji kenn mënu fi ku fi yàlla jàppale rek moo fi moo fi moo fi am comprendre sama jour boobu yàlla moo ànd ak man ak ñaan ak ñi topp sama ginnaaw ñëpp ku si ne loo mën def nga ko xëj na li def si combat bi sax moo tax combat bi yomb nii waaw noonu la dem léegi balaa may dugg si combat bu à 100 pour cent dama ñëw balaa nga koy jël parce que dañu déggoon sa combat ak ki nga xam ne moom moo di Malaw Seras ñu ne taxawal nañ ko promoteur bu ñuy wax Sow production moo ko taxawaloon combat boobu fu mu mujjoon ak nu mu taxawee waaw combat boobu taxawoon na quoi mais euh, après fi la mesure parce que business la woon xam nga ma jël ko mu bëri coow lool yàlla dogal lim dogal xam nga combat bi xam nga amul nu dem jëli combat jànq ndax samay supporter bi ma jëlee combat boobu amoon na coow lu metti xam nga ñu réeroo seen biir ñu naan ma waroo koo jël ñi naan ni may tax ma topp sama ndigalu supporter rek ndax man chaque jour dama koy wax dama ne bu ma demee ba kenn toppatuma làmb ji dama ko naan ñu man gars yi ñoo nekk sama ginnaaw ba léegi nii di ma dooleel comprendre après nag ndeg da ma jël pas ñu ne ma kii mag la ko mënu ma ne pas la sax mais mag la ma jël combat jànq mar marle maag moom bu ñu taxawee da nga naan cinquante cinquante yàlla nag mooy dogal jox bu victoire. Marley bi nga ko jëlee comme noonu nga wax dañ naan mais mu nekkoon mu nekkoon moom itam jël am défaite daaw comme ni nga ko amee bi nga koy jëlee yow mbër mu am défaite nga jël ko ngeen bokk lu ngeen dund loolu disul woon si yow. noo diis na si man diis na si moom. comprendre ndax euh, làmb ji boo amee benn défaite sa benn tànk la ñuy génnee. nga amaat defet ñu génnewaat beneen tànk bi boo amaatee benn defet nag ñu génne la làmb ji làmb moo tollu foofu defet interdit la sama jamono yi ñu toll wax dëgg yàlla dina ma jaral lu ne ba defet buy ñëwaat itam dina yéex lool wax dëgg yàlla loolu maa ngi koy maa ngi koy sasoo sama bopp daal te loolu insha allah combat bi bëri nay critique te metti woon na imaginel combat booy rek duré six mois nga jóge si koor gi ma am si ay dund si ay jafe-jafe yu metti xam nga def fi soog xam nga mooy loolu dafa metti woon daal mais yàlla yàlla xam na ne combat bi waruma ko woon ñàkk sax billaahi nii rek la mënoon demee waa waroo koon ko ñàkk gañe nga ko comme ni nga ko waxee mais sa adversaire d'accordul amateurs yi am na ñoo xam ne sax dañ ne d'accorduñ parce que ñi nañ ne jël am na ñi ne jël amul ñoo xam sax dañ ne arbitre bi daa yàkkamti yow loolu yaa ngi koy dégg xam nga lu tax amateurs yi duñ man euh, liñ xam si man mooy bëre bu metti xeex bëre mais Marley li mu def nii moo gënoon a yomb si moom si combat bi. yooru yooru ñëw sànni ay coups yoo xam ne tegoo ko fenn pour man dafa yàb ay supporter am li mu def tegu ko fenn. Hmm. arbitre souffle rek nga riir mel ni yow da ngay dem duma ji sa doom. mais mais da ngeen doon bëre. ah du bëre la woon. mais bëre nga jeexal ko si ay secondes. dafa daw ñëw ma riposté xam nga mënoon na maa sànni coup perdre mu yegg ma fu sori moo tax mu reporté comprendre mu ñëw xam nga sànni coup coup bi dal ma mën a ko yun mu ne nii ma fàq ko mu wàcc mu def kaat appi kon lan lañ bëggati moom kay moo ko yombal. sa loolu moom def na carte d'appui. non carte d'appui bi moom ñëpp ko gis. ah moom nee na deful carte d'appui ba dugal na recours yaakaar naa su ma jumul au niveau du CNG. recours moom mbër bu la neex nga dugal recours mais recours boobu muy dugal moom vingt cinq mili yi mën na dem jënd ko saaku ceeb wala ñaari saaku ceeb. wala mu jën si diw <laughs> loolu moo ko doon arrangé quoi. da ngaa jàpp ne recours bi du ci am gain de cause. non ñëpp dañ koo gis site internet yi dara mënu fee réer léegi. te euh, lu am solo laa lay wax nii gis nga site internet yi jar na nuy bëre waaleel gis nga boo bëree ba si guddi gi sa trente vidéo dinañ ko dugal si site internet yi billaahi jaral man léegi dafa ma jaral lii billaahi ma daanu waaw billaahi mais kon bu fekkee dafa def recours nga xam ne dañ ko génneel carte appui xanaa carte appui bokkatu si la am vaar kaay am na fi léegi match yi am na vaar léegi ñooy vaar bi. site internet ñooy vaar bi. boo capturé boo capturé quatre appuis sa gars yi capturé nañ ko lu mat vingt photo envoyé ma ko si guddi gi. te man damaa gis carte appui bi ñoom Lamine Samba gis ko yéen itam ngeen gis ko kon lan moo xewate moom bu bu laar bi du woowaatoon ne bëri pare woon nga pour bu <laughs> est-ce que loolu loolu am noonu. dafa yomb. ci am na ñu ne loolu la gën a loon de. <laughs> waaw combat moom euh, li naan victoire du ndaw. man dama daa bëre ay trente minutes dem à lésir comprendre di bëre bëri bu metti amateur yi di kontaan mais moom moo ko yombal. xamu tax moo ko yombal. Euh, comme li ma la wax léegi combat bi bu demoon à xol bi dama koy vider ndax li ma entraîné si combat bi dama yëg din xam nga à rek laa bëggoon yóbbu ko mu jeex ma daan ko ndax xam naa ne trompeur ko gën a diis bi may bëreeg moom. te moom trompeur da daan moom na bàyyi wax ji moog Alioune Seye. Alioune Seye ban ñoom fu ma leen daane ñu salteel Pape Mbaye Alioune Seye Marle fu ma leen daaneel dañu dafa mel ni man waruma leen daan te dama leen dàq bëre gën leen ës. yow da lu metti da leen gën a ës waa <laughs> dama leen gën a ës. gën gëm yow. gën leen ñemee lu metti hmm. ñoom noonu di nekk di ratatate pambay bi ma ko daaneel lu ne wax na ko. Alioune Seye ma daan ko lu ne mu koy wax ci site internet ne bawal waruma daan xanaa kon moom warul jël sama avance pour ma daan ko kii itam ma daan ko muy ratatatiwaat ñoom seen seen la xamal lan la buñ bëggee ma mayaat leen revanche defaat leen comme noonu. buñ ko ko bëggee géejawaay waaye sama waa ji nan ma fa jox keneen sax moo. keneen kan. kun ma fa jox keneen baax na. kan lañ kan. kun ma fa jox koo xam ne moo raw Alioune Seye raw Marle. raw Pape Mbaye. géejawaay ma jël ko. géejawaay ñaata mbër nga fa daan. kan ak kan. Euh, daan naa Maam Balla. Pape Mbaye. Alioune Seye ak Marley. Hmm. waaw. yow ma la daa mel ni géej waaye da nga ko bëgg a nooy neex daamel mel ni da wala. du question nooy neex samay adversaire fa la ne. man saa bu ma euh, bi ma bëreeg euh, Alioune Seye dama dem jëli ama neex neex fu mu nekk. Caaroy la nekk non fële Tëngéej la nekk. ma dem jëli ko yàlla defaat ba ma dugaat fa. man naa faa dugaat man na maa dugaat feneen. géej waaye faa bëgg dugaat da faa bëgg des sax la. waaw. Sathies de bu ñëwoon ma may ko sens. saanan. barki Seydina Mohamed. dafa war a ñëw bëreeg man. booy te nga xool li ngay wax. war a man a euh, ñëw bëreeg man. Sathies nga wax de booy bu booy bawal. yeggaguma si Balla Gaye. yeggaguma si Lac de Guiers. comprendre te Balla bi muy bëreeg Mbaye Diouf. Hmm. bu bawal boobu Mbaye Diouf moo ko may sens. grand yi dañ fay nekkoon di ko may sens mais Sathies parce que mën na ne moo ma njëkk a dugg si làmb de ndax bëreel naa ko petit combat. mais làmb day dabante si défaite la jógee man ma jógee si victoire nanu boole mu neex ñu xool. est-ce que Sa Thiès ngeen ci wàllu palmarès ak ci wàllu kase tamit est-ce que làmb boole na leen actuellement. non kase maag ama neex dama dama fayee ko lu mu bëri ak yeneen combat dama fayee ko lu bëri. comprendre mais samay moroom mënuma leen jeexal dama see daan xuma ñaata 17 personnes xuma 16 personnes. xanaa Sa Thiès nag xanaa kay. mais yow daal Sa Thiès nga jàpp ne da mooy sa adversaire Guédiawaye ma Moussa bu ñëwee ma may ko ma may ko loxo ndax Mame Balla da koo daan ma daan Mame koo kooku vitesse am ndax ne mën nga koo freiner. <laughs> ban vitesse am kooku est ce que ñëwee na ma sax. Ah, Moussa est ce ragal la da ngaa yaakaar na ragal. je bëgg naa sama combat moom xam nga làmb la quoi. gars yi dañoo war a ñëw ñu bëre. xam nga doo nekk benn palier rek di bëreeg say moroom di bëreeg say moroom ba kañ kañ ngay yegg comprendre na gaa yi wàcc bëreeg booy yi làmb ji gën a neex. léegi bu dul Moussa Ndoye du Sa Thiès comme ni nga ko waxee. ñooñu ko keneen ko koo xalaat itam ndaa ndaama bi itam bu ñëwee itam. ab combat nii la fi bëri démb de. ndaama Thiès bi xaw ma. ndaama Thiès bi da ñëw. kan la xanaa mu du tur. <laughs> waa xam nga tur bi waaye. Ah, déet man xawma ko wax ko. kii euh, Moro Anta bu ñëwee itam. bàyyi ma njool la li maa ko maa ko am maa ëpp maa ëpp ay jàppale. comprendre tam maa ko ëpp doole. waaye yow li nga wax neex na di maa fi sa vraiment fi jàppale. xam sa bopp xanaa waaw ah, bu la neexee wax rek jubale sa kanam. maa ngi dañoo def signature. Marley ma ne ko ku ëpp doole ak ku dàq bëre. ak euh, ku gën a financé si combat bi yàlla na daan mu ne amin amin googu nag moo ko topp ndax xam na ne loolu yëpp maa ëpp. mu doon te balaa dóoru day dóore balaa dóore day dóoru. <laughs> bu ñëwee fekk fi Baye Fall rek ay taalibe Baye Karim lan sëñ Abi Mbàkke bu dóoroo rek ñëw fekk fi ay Baye Fall xam dóoro bi gën a neex rek ñu dóorante. combat na fi bërki démb diggante Quench ak Diène Kaïré Diène daan na la Quench niil na ak Diène foofa amoo fa adversaire nga <laughs> ah, euh, ah. dalaa daan. Diène daf maa daan. mais. nu ñoo bokk course bi. rawante sax amul suñu diggante ndax bi ma koy jël maa ko rawan may ko parce que may ko loxo mu daan ma. coince moom dama koo daan ñaari yoon ba pat xam nga mais daal man xool naa si kaw daal man est-ce que man si kaw laa bëgg a xool daal. yaa coince da nga yaakaar du ko maal da nga koo raw beneen ci kaw laa bëgg a xool wala jën kay. non non ah du question raw de mais yaakaar naa kooku dax ñemewu de bu ñu tegoon suñu combat du ma ñeme. waa ndax dama ko daan samedi ak dimanche tëngeej xam na nan dem feneen. coince. waaw. da génn feneen dem fanaan fa ñu bëgg a dem Lamsaar kay la coince ndax nga bëgg ñu génn fa. Lamsaar boobu wax dëgg yàlla oh, ñi ma fa war a bëreel yaakaar naa du coince. yaakaar naa ni supérieur coince laa fa war a bëreel. ñan ñoo fa supérieur coince wax leen kon. ay ay garaam rek. non du ma leen tudd di leen may. booy eh, yaa tudd coince nu ma bës nu ma kase. mais fa tudd kenn. ku ma fa lam boole nag suba suba ma jël la lee laa lay wax kay. Lamsaar de man ña ma fa xam fëgg laa fa ne am na combat Siteu amagul combat Nees amagul combat xanaa du ñooñu nga may wax de. ñooñu ak Tidiane Faye. ñooñu nga ma tuddal ku si ñëw amul problème loolu du dara làmb la ñun ñooy mayante xaalis sa defuñu fi lu ma fi deful. maa leen ëpp ay victoire. yaa ngi dégg la bu ma jógee bawol bawol yëpp jóg. waa Ngor jóg ñëpp jóg kon lan moo desati. ñoom it bu buñ jógee seen i mbokk jóg waaw kon noonu la kon promoteur bu ñëwee man man moom naqariw maa waxal ndax père Max moom luñ ko fay lu jaadu rek day jël. mais loolu doyul waar yow père Max yor sa sa li sax nga bëgg a dal ci kaw ay mbërëm. mais loolu du dara si làmb fëgg la wax na ko. loolu dañ koy négocier euh, sport jafewul de. comprendre sport nit ñi ñoo ko jafeel nii mais jafewul tey nit mën ngeen bokk même mën ngeen doon sax ay doomu bàjjen ngeen daje bëre. ay mbër def nañ ko ay xuma Maama Lamine Sarr ak euh, Basirou Sarr def nañ ko fi comprendre làmb la tey bu ma waroon a bëreeg mbëru max billaahi wallaahi talaay bu euh, buñ ko signé tey amul problème bu max bu ko neexee sax na farfee wala mu far fu ko neex jeex na man loolu dérangé wu ma waaw loolu dérangé wu ma marle mi kan moo ko yoroon max moo ko yoroon waaw waaw kon soomoon na ma léegi nag wax nga ñi nga bëgg a bëreel ak yu mel ne ki doon attaqué fi sax ay nit waaw ay Sa Thiès sa ki Moussa Ndoye ki moo doon ta nga fi attaqué mais léegi waaw ne non attaqué wu ma leen dama xam ne làmb làmb yu neex la quoi sa xam ma mënuma fee nekk sama supporter am na nee ma am na combat yoo xam ne boo ko jëlatee duñ ñëw stade waaw ndax euh, ndaa dama defoon examen <laughs> échec ma defaat examen nag kon kay euh, lii naa nu mu tuddati at mi naa kon nan ma jox si gars yi si kaw rek ma këlamte koo leen. léegi ñu lay suivre ci Leewtoo ak Lutte TV loo fay tàggoo sa gars yi ak looy wax sa mbokk yi mais maanaam looy tëjee waxtaan wi ko waa li may tëjee waxtaan wi damay gërëm ñi nga xam ne bi mu méttee ñoo ñëw ànd ak man bi mu méttee ba metti xam nga ñëpp daw ñu bëri daw ndax defet moom boo ko amee di nga dégg lu ne gis lu ne waaw ñi nga xam ne si si defet lañ ñëw ànd ak man. ñooñu dama leen di santaat bu baax ku si mel ni sama mama aji ku ci mel ni mama aji borom laa maare ah du mu moom laa maare kookoo ñu joxoon dogu yu rëy la lamin boris bu ngor itam bi mettee la si ñëw jàpp waaw petit production mi petit borom ngoy ay petit borom Bambey dafa ñëw jàpp sama turandoo booy bawal bu Cambérène moom itam combat bi da koo jaraloon xam nga mu ñëw jàpp si bu baax a baax. ban booy bawal. booy bu Cambérène. desee jàpp bu baax sama. doom bu njool bi ma gisoon sama ndoomu ndey mu talaa seen. moom itam maçon spécial. Kéba ah moom itam jàpp na si. comprendre ñi si jàpp daal Ibou Diop bi dëkk Njaan xam nga moom itam jàpp na si bu baax a baax. yaa ngi dégg Mor Diouf mu nekk Petersen moom itam. da see jàpp woo ay sëriñ sax xam nga andi ko sama cumukaay xam nga mais xam nga loolu garaawul quoi euh, sëñ sëñ Mbàkke bi nekk saate moom itam maa ngi koy gërëm bu baax waaw di ko gërëmaat di gërëm sërif fi ngoor yëpp waaw ñooñu ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm ñoom Seexuna Seck bi nekk États-Unis ñoom Mohamed Seck comprendre ñoom Aliou Ly xam nga ñoo ñëpp maa ngi leen di Aliou Ly Aliou du moom ñoo ñu fi digoon ay daal de mag Lamine <laughs> waaw dina leen ko jox ah, ndax euh, ay fan yu néew xam naa euh, bu ma ko joxee daal dinaan ko jox insha allah xam nga yow da ngay waaj a dem yow dégg naa fi mu ne sa boo daanoon da balaam ji maa waaw loolu moom dégg naa ci wooyu naag ne fi ne nga gën a jox bopp non du du lool ngay dem nag nu ñu yónni suñuy daal ñun ak suñuy dollar non demaguma euh, xamalu tax ma wax la léegi sama supporter ñoo tax ma toog si lam ji ba léegi ak sa yaram bi ni <laughs> yow gisoo ma ni ma mel xanaa <laughs> non xam làmb dafa neex quoi nun li ñu dugal ci làmb génnewuñu ci làmb nun danoo gaa euh, fan yi passé dund nañ ci ay tolof tolof yu garaaw mais dañ koo muñ ñëw ba nekkaat fi nekkoon comprendre kon damay wax daal ñëpp mention spéciale quoi di wax euh, Babacar bi nekk États-Unis moom itam maa ngi gërëm sama copain bi nekk Paris sama gars yi nekk Paris yëpp ñoom Babs xam nga ñoo ñëpp karaan bu ngor Paris la nekk sama gaa yi nekk Paris Europe bi yëpp partout dans le monde maa ngi leen di bu baax di leen wax ne maa ngi leen di sant bu baax jaay fa te non xaar balaa ngeen balaa ngeen koy jël PC ni nag doomu nday booy bawal sax petit production di promoteur di xale ñu gis keram mu sonn lool ci combat bi petit borom kaan bi ah du noonu la <laughs> ak maaraakan ñoom ñëpp di ay doomu ndoy booy bool petit maa ngi lay bëggee waaw Babacar maa ngi lay fay di fay waa Leewtoo ak waa TV ginnaaw ma sant sama ñaari waa ji sant nuyu maaraakan moon na mi ak booy bool ak ñi fi teew ñoom Talla Ndiaye ak Lamine ak Babacar daal maa ngi di fay daal waaw petit production si promoteur lañ ko xamee mais keroog dañoo gis mu yor gàllaaju mbër yori butéel yori xaaw yor kaan ci diggante booy bawol ak marle loolu la soppi boobu non ko xamee loolu Sénégal gépp xam nañ ko mais boo taxaw ci mar marle ba wax ji bëri woon suñu diggante moom wax ji daa bëri cooli ba nit ñi duñu waxal loo xam ne suñu jikko fu leen ñu koy wax ay da taxawaalu ay da dem ay mixa xam wax yu ñaaw sénégalais moo tax ñu génn ànd ak suñu mbokk ànd ak maaraakan taal bi dem duug bi saraxam xam nañ ko avant lamb ja marle gars yi ñoo naan lamb ji comme booy bool day année day daw non ñoo ne ko dawal gën saako mu def kaata bi nga dem ñibbi looy xaarati ah, mbër des na ko wax dawal non annéeral mu def kaata bi nga dem ñibbi kay kon kay yéen yéen a yàq yéen a rey amateur yi xam ne ne moom saraxam dafa yomb te dafa bëri wax nit koo xam ne fooy laal ci combat bi barki Serigne Touba Mbacké lamb ji guddi guddi dañuy am ndam dañoo xaar mu timis rek ñu lem bagage yi mais tamit en tant ku bëgg a nekk promoteur wala sax ku nekk promoteur est-ce que mbër en cent pour cent bu mu fës nii est-ce yoon la ci yow non loolu dara xamal lamb Aziz Ndiaye ñëpp ku ne da ngay am sa mbër di ko indi kii sama mbokk la ñoo bokk bool ñoo bokk lépp kii bu xewlee dama war a teew ndax ma xewlee day teew muy naqar muy baneex lu ma xewlee dama ciy teew lu ma xewlee da ciy teew moo yoon tamit ma ko ànd ak moom te lamb boo waa géej wee xam na yaa gën a xam duñu ko seetaan mukk muy toog ñaar defet loolu du ma sa am te fi ñu jëm moo gën a garaaw ndax maaraakan mi fu ñu lay dugg ci àdduna ndax combat bi combat bi lu ñu jaroon moo bëri maara doom yaay xam naa ne xamoo mais saa yi sara xamoo yow ma gën ana kaan bi non kaan bi bi kaan bi soo demee sax sax incha allah ah. am na yeneen combat yi des ñi des. Ah. ngir yàlla man wax laay bañ waa Guédiawaye nan ñoom waa Guédiawaye ñoom ñu war di ba mu ñëw ne ko dimbale ñu ngi dal dem dimbale ñu ci booy bool. non dañ di dimbale du question du bëri mais dañ di dimbale comme ñoom ñëpp jeex nan comme am la xam la dégg daf fépp dem jëli Boy Niang ndax Boy Niang daa sonal waa Guédiawaye kii sonal waa Guédiawaye na fépp ñëw jël ko mm. lamb ji jeex mooy lool di béggee sama gaay yëpp ñi doon jàpp si combat bi maaraay mag yu ndaw yi ñoom maaraa kan xama ñi ñuy son ci bawol billaahi lépp xaalis lu ñu soxla woon manque nu dara di sant ñëpp maire aji bugguma ñëpp daal ñu jàpp maa ngi sant ñëpp di béggee ñëpp yaa ma gën a xam tey euh, olof yoo ko wax rek ku fëtal mbët rojil bar waaw xanaa di leen nuyu rek waaw di sant waa Lutte TV ak waa Leewtoo yëpp waaw di wax na li ngeen def nii nice na trop waaw parce que mbër am ndam ngeen ñëw fekk ko fi mu nekk ngeen jël ko tamit loolu lu nice la quoi mais tamit comme li petit wax rek fi mu daanele foofu laay tàmbale quoi parce que làmb ji bëri woon na coow trop mais liñ naan ko xamul xamul rek mais yàlla xam na ne Marley keroog lu mu mënoon def lu ne day daanu hmm. parce que waaw dañ ko parce que dañ ko tegoon fu leer làmb ji waaw dañ ko tegoon fu leer a leer ñu bëri ñu ngi wax mais li ñu wax xamuñ ci dara Bawol Bawol entraîné deful li mais Bawol Bawol doon entraîné suba di entraîné ngoon yàlla xam na combat bi lim ci daj mosu ko daj ci benn combat man loolu dama ci am preuve parce que fu ñu jëmoon ñooy ànd maa ko doon yóbbu suba di ko yóbbu ngoon muy entraîné di daj ci combat bi lu metti li ñu doon wax ci signature bi rek naan ku gën a sonn yàlla na la yàlla may ndam loolu moo feeñ ci làmb ji quoi parce que vraiment Boy Baol dafa sonn ci làmb ji trop ñëpp yéene woon ko ko nag waaw ñu yéene woon ko ko trop parce que defet dafa métti dafa jigoon ci defet te booy bawal fi mu nekkoon du palaasam parce que ay moroomam ñoo ne ci kaw te ñooñu ñu nekk ci kaw kenn mënu ko xëy na yàlla moom mooy dogal quoi te amaneex mi ko daane da ko war a daan parce que mbër la mais booy bawal koo xool xam ne mook amaneex keroog ku ne xam na ni mu demee daal moo tax làmb ji mu jaraloon ñu trop waaw ngir leen taxul woon nag lu ndam rek lañ bëggoon ko waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp nag vraiment